du daj ci buur bu ñaareel amul ndend du ci jëmmam du ci meloom du ci ay jëfam amul ndend kenn la amul ko ñu bokkaale kenn du jariñu ci àddina lu dul ci jariñal yàlla moom nga xam ne mooy rahmaan kenn du mucc ci alaxira lu jug ci muccug yàlla mi nga xam ne mooy rahim amul benn buur bu dul moom moom mi nga xam ne mooy arrahman te mooy arrahim mooy xéewale xéewal yu dijji mooy xéewale xéewal yu sew yi mooy xéwal ku ko neex mooy yërëm ku ko neex fii ci àddina waaye mooy yërëm ku ko neex ci alaxira yàlla yàlla julli sëlmal ci yont bi nga xam moom dafa doy la yàlla mi wërsëgale wërif wërsëg wi julli googu ak sëlmal googu yàlla law ba ci ay ñoom ak saxaabaam ñi nga xamee ne borom yi ngërëm lañ ci borom yi tawfeex ak képp ku leen topp ci rafetal ci mboolem gox yi julli ak sëlmal goo xam dañuy ànd dañuy ànd taq taq duñ taqali ko ba keroog bis bi nga xam ci la yàlla dajale mi def yëpp ginnaaw loolu mbokk yi maa ngi fàttali sama bopp di leen fàttali ndénkaane yooyu mi ngi jógee ci Serigne Touba tam waxal ko boppam bindal ko boppam ma ngi ko tàmbalee ci ni déglu leen te nangu lii ma leen ma leen di wax lii ma leen di wax nag mooy bu leen wuuteeg sariya ak sariya bu laab bii bu leen wuuteeg moom ak lépp lu jàppani nag ci xaqiqa bu leer bii kon Sëriñ Tuubaa am njàngam am njàngalem yëpp mi ngi ko tënk ci jël lépp sariha ba jeex bu ko defee nag sariha loo ci am xaqiqa loo ci am mu doy waaye daa mel ne li ëpp ci maas gi safaanub loolu sëñ Tuubaa digle la lañuy def mooy jël xaqiqa ju bari ak tuuti sariha sëñ Tuubaa di digluwul loolu nee na na ngeen jël lépp sariha ak lu jàpp ne ci xaqiqa mu leeral nag lan mooy sariha sariha bu julaab jooju moy moy gëm yàlla ci diko wétal di yéne aw yu bolé koog nak di jaamu yàlla sa cër yi ci bànqaasu feq yi ci gëm yàlla moy ñaata ñaari seer yi ci julli joxe asaka koor aj màkk nee na nag boo defee loolu ba noppi nag nga soog caa bool nag lu jàppandi rek ci haqiqa bu leer bi mu ne xaqiqa bu leer moy la nak moy lépp loy jëf ci sariha nga jëf ko ngir jëmmi suñu borom sooy jëfi sooy jëfe ndigal na sa jëmmi suñu borom tax sooy bàyyi nañ la tere na jëmmi suñu borom tax loolu mooy xaqiqa bu leer bi mu ne bokk na ci jëfe ndigal yooyu jëf lépp lu war ak luñ sopp te di ko yéwénal nag ci yu dagan bokk na ci yi ñuy tere nit ki bàyyi lépp loo xam ne suñu borom dog koo tere moo xam terek alaamal la wala terek sibal la sëriñ tubaa nee na na ngeen jëfe ndigal te mooy ko ko tere ngir jëmmi suñ boroom ànd ak doylu nag sariha kese kese ma actifa yi bi mu jaradi sarihat la wax ànd ak doyloo sariha kese kese ak nag lu jàpp ni ci xaqiqa te lu dul ñaar yi muy sariha ju bari xaqiqa loo ci am mu doy lu jul ñaar yi bu leen ci am soxla ndax kat am na lu seen kanam loo xam ne nii moo tax ngeen war maa ci lii ma leen di woo ngeen war a nangu lii ma leen di woo te mooy jàpp sariha ak lu jàpp ne ci xaqiqa mu ne bu leen àddina war seytaane waraa kon bi bu mu leen war kon na ngeen jégalu seen boroom te tuubal seen boroom ndax kat am na lu ne seen kanam loo xam ne nii war naa tax ngeen yeewu ci lii te ci lii mu ne yonent bi sallallahu alayhi nee na dee leen bari lu ngeen fàttaliku dee mbokk yi Sëriñ Tuubaa nee na ñi am xel ñi xelu ñoom de fa ñuy rawantee mooy ay xel yu baax xel yu baax waaye nag ñi sàggan fa ñuy rawantee mooy ay naaru góor yu baax ay otoog ay kaat-kaat ay widut ak ñi sàggan ñooñ ci la ñuy rawantee waaye ñi am xel moom ci lu baax rek lañuy rawante sëñ Tuubaa nee na ku am xel nag day fexe ba jikko jikko juñ tàgg mu ne ci moom ci am xel day fexe ba jik bépp jikko buñ ŋàññi mu bañ a nekk ci moom kon loolu mooy am ak loolu mooy ku am xel sëriñ Tuubaa nee na ragal nit ragal mbindéef bu la tax a jëf yàlla tere ñu ne ah, mu ne kat boo ragalee nit ba jëf yàlla tere su mbugalam yàlla ñëwee kenn mënut a dox sa diggante moom mu ne ba tey ragal nit ragal mbindéef bu mu la tax a bàyyi lu yàlla tere ndax boo bàyyee lu yàlla tere ngir ragal aw ragal nit nga reelu son borom bu jëm sa ci yow kenn mënu ko fanq sëriñ tubaa daana wax ne bu ngeen bëggee sellal da di xool jëf joo xam ne da koy jëf te yàlla rek tax ngeen génn ci mbindeef yi mu ne boo xoolee jëf joo xam ne yàlla rek tax nga di ko jëf génn ci mindi yi yàlla dan la wan ci jëf jooju loo xam ne da ko mën a bàyyi ndax bànneex ba nga ciy am sëriñ tubaa daana wax ne saa yoo bëggee jëf li la yàlla digal tam tëla ticc wala nga bëgg a bàyyi li la yàlla tere bàyyi gi tëla ticc nee na na ngeen dimbali ko tuub bu sell dimbali ko tuub ci bàkkaar te fas yéene ni sa kanam doo ko def wax nañ ne tuub bu sell mi ngi mel ni ku teg tànkam ndëggoom ci xalu sawara dootu ko tey mukk di ko ca tegaat noonu la tubb sell man mel mbokk yi nanu jéggulu suñ borom te tuubal suñu boroom kon mu wàccee ndaw mu wàccee ndox mu bari te doolu ñu kattan ci ak kattan yonent bi xale yi salaam daana wax ne ki tuub ci bàkkaar daal daa mel ni ku jëful bàkkaar kon bàkkaar lu mu bari bari boo ko tuubee suñ borom jéggal la ko mbokk yi Sëriñ Tuubaa nee na ngi leen diggal juróom benn mbir juróom benn jëf di leen tere juróom benn yëf nee na juróom benn mbir yi ma lay digal yi ma leen di digal mooy gëm yàlla lislaam lihsaan mooy ci alxuraan ragal yàlla juróom benneel ba mooy sàkku xam-xam te di ko jëfe te ànd ak ay teggin nee na ku gëmul yàlla ci sa xol kooku da ngaa wedd yàlla ab yëfar nga ku jaamuwul yàlla ci say cër kooku ab kàccoor la képp ku rafetulul ci léppam kooko day bokkaale ku ngayul ci alxuraan réer na réer goo xam ne da koy xëcc jëme ko ci lu koy joola ba faaw ku ragalul yàlla ci jëfi ay ndigalam te bàyyi ay tereem te yàlla yërëmu ko mu tub tub gu sell ah perte na perte gu wér ku réer nag te sàkkuwoo xam-xam ànd ak jëfi sa xam-xam ànd ak ay teggin ba dee di kël la sànq nga sa dund yàlla nañ ci yàlla musal sëñ Tuubaa nee na juróom benn yi ma leen di tere nag ko ci njëkk mooy iñaan mu leeral lan mooy iñaan mu ne sama kom julit bu amee lu baax moo xam góor la wala jigéen la bul yéene sa xol mukk mu ñàkk lool saa yoo mébéte sa xel rek mu ñàkk loolu iñaan dugg na ci yow rawatina nag ngay wax walla di jëf lu ko xañ xéwal googu sëñ Tuubaa nag nee na maa ngi leen di moytu ko iñaan ndax ku iñaan moom du nekkub sag mukk fa inal xasuuda laa yasuud ñaareel ba nee na maa ngi leen di moytu ko rëy rëy nee na rëy nag day dugal borom sawara képp ko sax ci rëy ba faatu sëñ Tuubaa nee na sawara nga jëm te kat Iblis moo gënoon a bokkoon na ci ñi gënoon a jege yàlla suuf si fépp foo lu fi tolloog sibru rek. iblis su jotal na fa suñ borom waye la ko xagn yermani suñ borom ba tax suñ borom do bu ko moy reey rek reey su jotal adam te reey nak sëñ Tuubaa neena ci jawhar na bi du dara ludul xeb nit ñi ak sa yo deugé deug sa yo deugé deug bañ ko nang ñettel ba neena ma ngi leen ne moytu ko ngeen xir xir ci adina sëñ Tuubaa neena xir nak mom day xëcc borom jëme ko ci rëcc ko mag rek sun maam adama xëras sax ca ajjana moo tax mu lekk garab gi ko suñu borom digaloon moo tax it bañ ko wàcc suuf rëcc na rëcc ku mag ñeenteel ba sëñ Tuubaa nee na maa ngi leen di moytali ko nuur ci bàkkaar ne ci lu bon tax waajoo tuub xalaatoo tuub saa su ne ngay nit gisal tuub rek sëñ Tuubaa nee na loola moom màndargam texee di la ne ci bàkkaar jóge woo ca tuboo ca màndargam texee di la juróomeel ba nee na maa ngi leen tere nay naykat nee na ki nay day jege sawara sori ajana ki nay day sori yàlla sori nit ñi juróom bennal ma nee na naa ngi leen teral nag nit nital mooy lu baax loo bëgg a def di ko waaj di ko waaj di ko waaj ba bàyyi ko nee na ku sax ci nit nital nee na lépp lu baax raw la te képp koo xam ne lu baax raw na la te dab dabaatulu ko da nga taxee di ak taxee di goo xam ne ak taxe amul ci ginnaawam yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañu yàlla boole ci jaam yi nga xam ne dañuy dégg waxta topp la ci gën a rafet suñ boroom ñoo ngi lay xamal ne tooñ nañ suñu bopp boo ñu jéggalul yërëm ñu dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañoo perte aqulu qawli hada wa astaghfiru li wa lakum wa li saa'iril